jërëjëf euh, waxtaan bi am na solo lool. Mhm. dëgg yàlla njëriñ yu bari feeñ na ci. Mhm. jërëjëf. Mhm. sëñ Mamor ak sëñ ci xasida yeeg waxtaan yi sëñ Kébé waat kàlla li nga wax li nga laaj sëñ Mamor li mu andi. xëy na fa laay sofee sama kàddu mu tontu ci laaj boobu. sellal sellal gi. ak euh, fexe ba man koo jariñoo ndax defe naa loolu moo ci am solo. ndax ab ab murit ab yëngoom akub mm-hmm. dalam mm-hmm. ak léppam yéene mooy fas yéene jariñu mm-hmm. jariñu ci sëriñ bi te bu nee te buñ nee jariñu ci sëriñ bi jariñu ci xasida yi day daal dugg ci biir kon ci ay bindam ci ab liggéeyam xasida yi dafay jëfi ndigal wax nañ ko léegi te loolu mënees na koo layal ci lu leer loo xam ne mën naa am ay cëslaay yu wér euh, wax nañ ko ne ndigal ko ne bu ko waxee xam ku ne xam ne ne am na ndigal loo xam ne ñëpp a ko bokk mhm. muy ndigalul am loo xam mhm. borom da koo digal ñëpp jullit ñëpp mhm. waaye bu ñuy wax dëgg dëgg ndigal lii sëriñ bi jagoo nag loolu moom is na is na xaas la loo xam ne waaw boroom moo koy wax ne ko defal nangam bindal nangam sëñ Mad Lamin Jóob Dagana ci alminahul miskiya dafay nettali lu am solo loo xam ne dana firndeel e, doolay xasiida ak ndigalul xaas li mu doon loo xam ne suñu borom moo mooy sant sëriñ bi ne ko wax ne ko bindal bindal nangam. maanaam bi sarixi oktub hmm. te loolu sax bu ko bu ko bu ko nettaliwul woon bu ko suñu daal bi nettaliwul woon ci li li sëñ bi andi dana ci feeñ. Hmm. ndax ko xam ne dañoo xam ne aktubu naaxilan min al lawxe hmm. wa min qalamihi wa fii xurufi lam amin. li may bind maa ngi koy toxale lawxul mahfuz. te it maanaam ci xalima gay gay bind ca lawxul mahfuz laay jëlee. waaw te du ma wax mukk lu dul noonu ci samay xaraf. waaye suñu demee day nettali eh, ci xasida ak ay yasaminillaahu indi jeewali mm-hmm. xam nga xas xasida gi suñ bi da ciy nettali jaar jaari géej gi mm-hmm. sax gannaaw bi mu ñëwee bi mu ñibbisee ci bind di ci nettali xew-xew yi mm-hmm. eh, waaye sëñ bi laa mi nee na bi nga xamee ne yàlla dogal na muy nettali ba agsi ci eh, xew-xew bi bi bi jiitu sax nag bi njëkk nga xam ne mooy xew-xew Libreville bi ci biir géej gi ndax am na yu ko jiitu waaye mooy yi nga xam ne yooyu ci ci yoon wi la waaye yi nga xam ne dafa xewee ci biir ci biir Gabon mi feeñu ahlu badrin bi mu bi mu agsee foofu te am lu mu dëxalewantu woon ak maanaam boroomam mhm. te suñu borom am waxtu wu mu ko doon négloo ngir bu ca àggee mu war koo jox ndigal mu war a bind xew-xew booba mhm. ak ba mu waxee nasaraan ya mhm. waaw seen. Mhm. ba jaar fi mu jaar ba ñëw léegi jaaree. Mhm. dafa am benn taal bu ci gaal gi doon taal sëñ bi dem gàtt di dox ba dem dox bu ñu demee di dox ba dajeeg benn soldat boo xam ne daa bokkoon mhm. na kooka di mu ne ko ah kooku ci ay xabaar. daal di nettali xar baax bu feeñu ko na agsi ba ñëw sëñ nettali ko ko. ne gis na ku bokk ca ña gisoon euh, kiimaan gu rëy googu. Mm-hmm. ndekete boobu fekk na suñu bi laa ne xaside gi. Mm-hmm. comme bi da koo tënkee inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan bi nga xamee ne mi ngi woy xarafi aaya boobu mm-hmm. ba agsi ci ya yaa eh, maanaam laamuk la laamuk laysa ak yaaga da koo tëb mhm. lépp ci kaw ndigalal yàlla suñu borom na ko mhm. bul ko bindagun nga xam ne bi bi bi bi bi mu agsee ci yassara lil mun a baat boobu mooy yaa uk inna ibaadi maanaam yaagu ndaw googu xëcc daal gi mooy mhm. yassara mun a la daal libar man qaada li ma xaaba an kulli wali ñu ngi jàng xasida gi de ci diir boobu yëpp ñu ngi jàng xasida gi waaye ñaari bayit yi moom rotul ci ñëwul ci nusxa yi ci copie yi nga xam ne ñu ngi koy jàng ci ci boobu jamono ba siini saar moom dem gabon ba ñibbisi mm-hmm. bi mu ñëwee ñëw njaareem siyaari sëñ bi nettali ko mm-hmm. la ko waaj a wax ca Libreville mm-hmm. sëñ bi nee na sëñ bi daal nee na sëñ bi daal di laaj xasida gi ñu indi xasida gi nee na mu daal di firi nag maaxaaba an kulli wali jooju lu mu doon ndekete nee na ci bis boobu la ko suñu boroom jox ndigal ne ko nag leeralal nag loolu nga xam ne moo ump moo moo ump bépp wali te yàlla defal la ko ci Libreville ginnaaw ñoom wax nañ ko te te te te da nga doon waxoon ne su su ngeen ko wax du ko wax te léegi ñoom wax nañu ko léegi nag jot jox naa la ndigal nag nga bind ko <laughs> nee na mu daal di jël nag laam ak lay sa lii qaada ahla badrinil usuuda xam nga ma ngay firi kon man zaxzaxal waasiya wal xasuuda li ump bépp wali te yàlla may ma ko ci Libreville mooy wommatal gi ma wommatal ahlu badrin min al malaayika mhm. ñu feeñu tubaab yi ngir xupp leen ak tiital leen bi nga xamee ne dem nañ ba jéggi dayoo ci lor yi ñu ma doon lor mhm. suñ la ñoom bi ñu demee Libreville 2015 mhm. gis nañ dem nañ dégg montagne seen fi xew-xew bi amee woon euh, ñu liir tabla ba fa nekk nga xam ne tey jumaa ju mag ci jumaa yi gën a am solo ci yoonu murit ci ci lislaam sax laay wax mhm. ci Afrique de l'Ouest ak Afrique centrale mhm. tey def nañ ko foofee te foofa la gaa yu tedd yooyu feeñoon ci li gën a siiw ci net lii euh, euh, mu ne mu ne kon loola wammatuk ahlu badrin gi moom laa jublu ci maaxaaba an kulibali yaawug lay saga mu daan ne yaquudu lii xaytu akunu llaahu tabashira laa ilaha illa allah mhm. kon gis nga xasida yi ci ndigalul xaas la ko sëñ bi liggéeyee moo tax mu ëpp mu am mu am doole ba sëñ bi sañ wax ne mhm. xasidati faaqat xasaidal kiram mhm. ndax koo xamee ne ni ko suñu suñu maamoor nett la yusuf ibn ismail mhm. di annaba annabahaani moom li muy baax baax ah dëgg la de liggéeyal na yonent bi de liggéey ba sell na de waaye day nekkul woon Libreville nekkul woon ba nekkul woon Lambaréné <laughs> daanaka fonction ku baax la woon ku sell la woon waaye fonctionnaire la woon uh-huh. boo xam ne dañ ko daan fay sax nag muy muy muy muy liggéey ci tribunal yeeg yëpp uh-huh. di toog nekk ci biir njabootam di bind ab xel mu dal ah, nekk ci jàmmam bu ko neexee dem màkk aji <laughs> <laughs> sëñ Tuubaa bi nga xam ne yàgg naa dem màkk ay at mënta dem lu ko waral yoonu géej gi xayib raja allazi yaqlihi fi abadin min aami ayqa wa kaana alxajju misaana kon kooku xam nga mënta yem ak moom eh, foofu boobu nattukaay képp soo ko ci nattee rek ah, da koy daal di ëppale lu bëri bëri ay ay ay points yu bëri waaw ah, kon eh, foofu rek loolu rek mm-hmm. day am solo ci laaj bi sëñ mm-hmm. sëñ kiñ kebe bu ñu ah. dellusiwaatee rek mm-hmm. mooy kon buñ xamee doole xasida yi xam ni mu toll danañ xam maanaam dayoo bi ñu ko war a jox ci bu ñu waaj ak waajtaay bu ñu war a waaj ngir jëm ci bisu xasida boobu nag te lépp nag ñu xool ci Cheikh Cheikh Mahamadul Muntaxa ndax Cheikh Mahamadul Muntaxa dafa neex a waxtaanee mhm. ndax ndigal li ñuy wax nii ak sellal ak eh. dëggu ak passeef eh. da ciy gawar daa bokk ci gawar yi gën a mag li sëñ Basiru di melal Cheikh Ibra ne min fursaani niya tilwa cheikhihi mhm. Cheikh Cheikh Muntaxa dama ko wax benn bi dañuy waxtaan ma ne ko mhm. man de léeg ma wax ci mbooloo loo xam ne xaw ma ba xam ndax am naa ki ndigalam déet mu ne ma lu mu doon ma ne ko damaa dégg suñu Moussa sëñ Abdou Khadir muy wax ne sëñ Abdou Khadir da leen daan wax ñoom waa këram ne leen day leen siyaare ji sëñ Saalihu boobu sëñ Saalihu ngi fi ndax siyaare sëñ Saalihu day dolli Pastef <laughs> ci murid sëñ sëñ xool doomi sëñ Tuubaa di di soññ ak njabootam ñu seere ji doomi sëñ Tuubaa ndax day dolli Pastef waaw moom nag xool ñoom seen seen seen xol yu rafet yi seen bëggante gi <laughs> dégg nga seen nawlante gi uh-huh. ma na ko may danaa faral di wax ne Cheikh Mountakha day diglu kàddoom ak jàkkaarloog jëmmam mhm. day yokk cofeel ki sëriñ bi mhm. di yokk pasteef bi murit mu fekk mi ngi mi ngi sonn woon ni mu daal di jóg daal ne ah waaw moom day bëgg sëñ Tuubaa dafa am solo lool ndax boo ko defee mhm. day raxas sa xol di defar sam xel bi mu waxee loolu sama xel daal dem ci bayit wa dujaanuha qawmin ahabuni mahat qulubu man liya ajaabu xat mu ne ko ah kon xanaa loolu kon mooy li li li sëñ bi di junj ci bayit boobu <laughs> mu ne ma bayit lan ma wax ko mu daal di daal di toogaat ne ma baamtuwaat ko <laughs> ma baamtu ko ba muy ñett mu ne ma sëñ Fall giñ naa ki sëñ Tuubaa ne uh-huh. dégg sa bayit yi rek na ma dox ba siin wallaahi laa si noonu nga xam damaa def aar sax ma ne ko ah baax rek uh-huh. waaye bayit yaa ma ko a xam gën ma koo dégg ko mu ne ma waaw waaye keroog lu lu ne lu xaal ju nekk dikkal na ko lu baax lu nekk ndeysaan ci teraanga keroog ne nga def na ko Ah. te loolu ah. xaw naa mu kii kon Cheikh Cheikh Mountakha moom mm-hmm. du jar sax ñuy indi mag ñi ah, wallahi jëlul sax ñuy indi mag ñi doxee mag ñi nañ ko jël rek ñi mu toppe woon ay kilifaam ndax boo nee ndigal rek wax nga wax nga nangu kilifteef ndax ki topp ndigalal kilifaam day nangu kilifteefu kilifaam te moom day wax ne sama kilifa su ma jógee jëm ci moom mm-hmm. dama koy bàyyeeg boppam mm-hmm. bàyyi ko sama bopp. Mm-hmm. sëñ foofu lañ mën a yem nag. Ah, te loolu ñun ñëpp dund nañ ko ak moom. Ah, ah. tàmbalee ko Cheikh Salih. mën naa sax jiitu na ko. waaye ñun li ñu fekkee. Cheikh Salih. Cheikh Amadou Lamine Baara. Cheikh Sidi Mokhtar. ku ne gis na doxi bi mu doon doxee moo tax lii lii yàlla tekki loxoom tey wallahi nëkkul lu lu maanaam lu ko jomb waaye lu mu lu mu yayoo la te lu mu liggéey la <laughs> donte nag xaaru ko woon looloom toujours da ko wax lii lii kat xaaruma ko woon waaye ku ne jàppale gi mooy. roy ko. Mhm. ak xool aw doxiinam man day wax ne. wala léeg-léeg mu am lu ma metti lool sëñ bi. Mhm. ci yu bëree bëri yoo xam ne day day xew ndax man ndax mu ab ab murid warul xaalis sama daan ko defal nangam. bu gisee sëriñ bi def nangam man mhm. ba ci masque yi ñuy takk masque man su ma koy takk. takkuma ko ngir ne damaa bëgg a fegu wala aar sama bopp ci ay tawat ndax man gëm naa ne yàlla moom mooy tege tawat moo koy tegee mooy rey mooy dundal mooy faat mooy dekkal waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha mii takk masque rek jar na bépp murit ku ne murit nga te gëm sëñ Tuubaa mhm. waroo wax naa ñu naan la takkal masque sëñ bi loolu loolu loolu loolu doy waar la waaw mhm. ndax yéen saa sallam noonu la saxaaba yi ànde woon ak moom te saxaaba yi ñooy suñu bàyyi ci diine suñu mhm. tubaab waxoon mag ña ah bëgguma ci ba bëgguma déborder waaye keroog bi sallallahu alayhi wa sallam di dem dégg nga xuday bi ma dem màkka te te te te te te te maanaam bay atul ridwaan am te saxaaba yi xaw am du leen naqari ndax maanaam dëpp nañ leen ba ba nga xam ne mënuñoo dugg bi bi bi yonent bi ne na ngeen rey seen i hadi yu te watu mhm. saxaaba yi am du leen naqari ñu xaw a mel nañu téye seen loxo ummu salamata mhm. moo moom saxaaba yi ak kii ki ki ki ki kii nañ yàqu nañu mhm. ndax ndax maanaam digal naa leen ñu ñu ñu ñu ñu gàntu mu ne ko déedéet gàntuwuñ ñimewuñu ko ñimewuñu gàntu sa ndigal waaye dañoo jaaxle dañoo am du leen naqari mu ne ko nu may def mu ne ko wool ku la wat ñuy gis nga jël sam hadi yu rey ko buñ la gisee nga wattu rey sam hadi yu ñu def ko waaw naka la waxtu rek rey hadi yu ñoom ñoom ñëpp ñu daal di njëkkati waaw kon loolu sëñ bi mooy mooy mooy doxiinu murid kon Cheikh Mountakha mhm. mhm. ci Pastef ci bëgg mhm. sëñ Tuubaa wax rek loolu day day feeñ ci ay waaye nag li sëñ sëñ la wax léegi sëñ Talla ko wax rek roy sëriñ Tuubaa taxul nga mel ne moom waaye dina tax nga raw ko say